ndaje moom dara warulu ko lu dul maanaam dañuy dañuy faral association bi saa bu tollee ci jamono jii rek maanaam day def benn balayage boo xam ne dëkk bi yëpp balayage général lañ koy lañ koy def. ndax xam nga ne comme ni mu ko waxee feebar yi muy àndal ak nawet moom xam nañ kenn ku ne ak salte lim lim mën a jural population bi loolu moo tax ñuy góorgóorlu sax bu bu bu événement bi bu nawet bi tollee fii bu ñuy muy waaj muy taw wala taw bu njëkk ñu fas yéene maanaam lépp loo xam ne nii salte la wala lu mën a doon loo xam ne nii tey mën naa andil nit ñi gàllankoor ci seen wér-gu-yaram rek ak comme xam nga nawet ak yooyeeg ni mu demee ñu fas yéene xeex ak loolu moo tax ñu ñu ñu def ko bi maanaam li xoolal fii nii tali bi yaa ngi nii gis nga doodaan yi ñu fi def nii ay doodaan kenn ñëpp dañ koy dox bay a dee man mii rek tey soo demoon Touba ci kanam da nga fa fekk suñ lettre demande boo xam ne dañ ko demande ngir lan ngir wut ay ay doodaan dong moo ñu tax a jóg pour demander leen ñu defal ñu ay doole ngir yàlla ndax do fi mu toll fii li fi soog di am kenn xamul lu mu dal bu yëgul fële ca toll ak kër Ngaal Njaay benn oto moo fa euh, Sekk benn oto moo fa mbëkk ab donga jannatu lañ ko yóbbu te fii xam nañ ne tëli bi gis nga ni ko ni ko kër yi wëree xam nga ne tey jii waruñu ko woon a bàyyi nii oto yi nu leen neex lañ fiy jaare te oto yi moom xam nga ne mënoo mënoo ñun duñu ay gendarme ay civil lañ comme ñëpp mënuñu leen yenn yi mënuñu leen ko wax courant bi am na ndox mi fi mu toll nii am nañ problème mu ndox bu mat sëkk am nañu carte yoo xam ne 6 mois ngi nii amuñu ndox juróom benn weer a naanuñu dañuy rootaat te ba si ndox moom xaj na ñi ngi ciy dox ndax dem nañ ba sëñ xaar waxtaan ci ak mu mel na ne ñëw nañ fi ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy am yaakaar mais daal dëkk bi li mu manqué bari na ay taxawaay moom maanaam tey moom dindi moom kenn taxawulu leen ci lenn ñi fi ñëpp ñi fi comme ni ko président waxee ni ñi fiy ñëw di wax naan ay dëkk bi leen tax a ñor dara taxu leen a ñor seen leen tax kenn ku fi xeexal dëkk bi amu fi boo fi boo fi gu ah, organisation de bu à organisation nit ñi ca bi amul beneen organisation bu ma fi gis man bu xam ne nii wala bu xam ne nii tey peut-être lu dul yi ñi ngi dox ci wàllu lu jëmale nit ñi ca kanam amul leneen. matériel rek man maa ko doon wax pour mu lijjanti ñu mënuñoo fexe ba lijjanti ay matériel ay bale ak ay buret képp lijjanti wuñu ko ñoo ko dem jënd ko suñu bopp te ñun tey lii association bi mu liggéey ba tey tey li ñu def ci affaire assainissement te ci ñu xam ne nii tey dañuy dañ ay ndimbali doomu aadama rek la ñuy yaakaar wala waa dëkk bi wala lu mu mën a doon loolu tamit xam nga ne jaaduwul parce que ñoom tey gis nga canal la war a am tey ñoom ñoo war a ñoo war a assurer assainissement dëkk bi parce que ñoom ñoom la ñoom lañ dénk dëkk bi ñun dénk ñu ab dëkk mais ñun nag nit ñi jaral lu ne lépp lu xam ne nii lu luy développement nit la ñun jaral nañu lu ne suñ doole suñ alal suñu xam-xam du ko fekk waaw bi ñu commencé bi ñu jógee ci bi ñu jógee ci arrêt yi ci lañ ci lañ ci lañ xalaat ne dañuy def dañuy def wàllu assainissement bi wàllu assainissement bi nag yëmul tey rek tey liñ bëgg mooy bale këli ba mu set wicc sécurité canal yi dañuy loué cab yoo fi mu toll lii dañ koy dañ koy ngacc ba mu set wicc suñu pare tamit dañuy benn bale général boo xam ne dëkk bépp lañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ koy jagleel nga xam ne amul xaj amul seet ci dëkk dëkk bépp lañ bëgg bépp mbarit bu fi ne ñu fas yéene wut ay cab yoo xam ne dañ ko tonni ba mu set wicc amoon nañ projet boo xam ne nii pour pour pour pour pour pour taaral dëkk bi lañ ko tuddee woon moo tax ñu moo arrêt yi nga gis nii moo tax ñu def ko fi muy juróomi arrêt loolu nag comme ni ko suñu président waxee rek yaa naa ñun projet bi ñu ko amee doon toon ndindi rek moo taxoon mu jóg ñun dañoo jàppoon projet bi buñ ko amee def ko ndir yaakaar naa nii mu taarale dëkk war nañoo mën war a fexe ba Touba gépp mu daj kapp ak ak parce que yaakaar naa tey lii amul fenn fooy dem ci dëkk bi di ko fekk ndindi rek ngay ñëw fekk ko fi te biñ ko xalaatee ay ay ay station ndindi ca kanam moo ko xalaat ne dañuy moderniser turi arrêt yi biñ ne biñ dañuy ñu débat ba ci biir ñu xam ne kuy defal sëñ Fall danga koy defal li moo tax ñu moderniser turi arrêt ba pare def ay arrêt xam nit ñi bu ñëwee daan ci mën a dallu ndindi nag dañoo maanaam ab néeg la ci dëkk ci biir kër gi Touba mooy kër gi ndindi am néeg la ci biir ndax fii pàggateefu Serigne Touba la moo joxoon ndigal Cheikh Mouhamadou Fadal mu sanc ko kon fii ci Touba la bokk nañ ko sóoraale ci lu ñuy def lépp ci Touba ñu boole ko xam ne ndindi ci la bokk. bu ñu jubee ci nawet bi dañuy def lu mel ne ay set setal yoo xam ne dañuy wër dëkk bépp ndax nawet bi ku ne xam na ne day ànd ay feebar yu bëree bay loolu moo waral ñu dugg ci dëkk bi jéem a bale tali bi sekkati canal yi gis ngeen canal yi ni mu mel. loolu nag boo gisee sabab li waral Wata Bet ñëpp xam ne avant ñuy dem ci liggéey bi dem nañ ci autorité yi fépp fu ñu war a dem dem nañ fa. dem nañ ci maire bi ba waxtaan ak moom moom ci jëmmi boppam mu xamal nañu sax nañu sekkati canal yi wóor leen ko def ci yéen seen jëmmi bopp bu ngeen ñëwee dinaa leen jox oto pour ngeen defar ko. léegi nag boobaak léegi ñu ngi ciy dox boobu ba léegi jëmu cee def benn action loolu moo waral tey jii ñun ñëw ànd ak suñu moyen def nañ ci xaalis bu dul jeex pour dëkk bi rek moom moo ko tax a jóg parce que Ndindy yaakaar naa képp kuy def sëñ Fall moom mooy tax ngay def waaye nag dañoo bëgg ngeen xam ne dem nañ fu ne pour ñu jàpp jàppale ci liggéey bi ñuy def waaye ñëpp dafa mel dañ ñoo parce que tëli bii comme ni ma koy waxee man dama yaakaar ne Ndindy benn kàtte la ci biir Touba waaye dafa mel ne dafa am lu ñuy wooyee xaaj ak seen parce que boo dëkkee ci dëkk bi dangay dem ci koñ yëpp ci Touba ñu ngi fi wut ay population ñuy bale ci tëli bi ñu leen di fay ba ci Ndindy gi sax am na service boo xam ne dañ leen a jël au lieu que ñu jël leen bàyyi leen ci tëli bi ñu bale non non defuñu ko dañ leen a jël yóbbu leen ci genn gox yi nga xam ne dañoo nekk ci biir ñu di fa bale loolu nag ab laaj la ba may samp ma bëgg a xam lan moo waral loolu ñun dañoo bokkul ci dëkk bi wala nan la demee noonu waaw dañu ci boolewul daal te boo duggee ci dëkk bi bëgg dem rek war naa dëkk bi Touba ay tëli yoo xam ne ay tëli secondaire lañ ña nga fay bale ba ci sax population bi dëkk ndi ñoom jël di fay ñoom ñuy bale foofu waxee nag seet nañ autorité yëpp ñi nga xam ne dañoo jàpp ne dañuy ay politiciens lañ ci nit ñi nga ne daa taxu leen a jóg ngir seen bopp seen bopp rek moo leen tax a jóg dëkk bi defuñu fi daa daa daa lañ fi def seen bopp rek bu élection ñëwee daal ñu mobiliser wu génn dem ci tuur ndindi xam nga naan ndindi ñoo def nii ndindi ñoo def nii fekk defuñu ci dëkk bi daal loolu nag lañ bëggatul mu continuer loolu lañ ne arrêté mënatul continuer xam nga dañu bëgg képp koo xam ne da ngay demante ci ci ci tuur mu doon loo xam ne daal wax dëgg yàlla nangoo duñ ko moom